Ousmane Sonko fan lañ ko ministre sax du laal salaire am ndax ragal ñu ne mu ngi koy def naka du sul loolu daal ñu ngi nii pour pour enrichir. voilà loolu ci ci bi muy nekk député ba niñ ko falee maire ah. voilà euh, donc ce sont des actes yi nga xamante ne ce sont des actes daw non politique yoo xam ne ce son des actes forts louables que les Sénégalais n'ont pas oublié te que les Sénégalais comptent récompenser pour ça. je suis d'accord maintenant nag bu ñu neewal doole opposition bi itam. parce que daanaka noonu la. noonu la des fois da ngay am yaakaar rek ne lii mooy daal xew mais man élection deux mille deux yi. man j'avais parié sur beaucoup de candidats yoo xam ne dañ koy duma. loolu c'est dafa doon dëkk ba de mais xam nga su nekk yaa ngi fréquenté ay par exemple foofu la waxtaanee grand place ak affaire yooyu lañ fay wax ak population bi. Mm. maanaam nit ñi dañoo fagul jël seen carte du yow mii la ñuy la mais peut-être l'ensemble ensemble bi nga xam ne moom ngeen nekk moom la ñuy sanctionné donc pouvoir bi actuellement su ñuy sanctionné mën na nekk ensemble maanaam li nga xamante ne moom lañ jot a liggéey mën na mën a nekk itam jëmm ki nga xamante ne moom moo ko jiite moom la ñuy sanctionné mën nekk positivement comme mën a nekk négativement waaye mbirum Mame Diarra Fam nga xam ne gis nañu waa Pastef yi nekk ginnaaw raay bañ nañ ba tëdd ci suuf ni ñoom daal du ñu ànd ak ka nga xam ne. Mhm. ay weer yi ñu génn gisoon nañu taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko jëm ci ñu dàkk élection yi ak yenn kàddu yi nga xamante ne doxoon na ci digganteem ak ñii di waa Pastef mu doon loo xam ne nag ñoom nee nañu ñett ni duñu jàkkaarloog moom di def ak moom campagne wala sax muy ñëw di vote. réew mi jàmbaajoo na nag. ils m'ont donné raison démb fii laa ko wax. fii laa ko wax moom wax nga ko en fait Marieta bu ñu nangu tamit ne képp ku ñëw ànd ak Ousmane Sonko rek da ngaa baax. Mhm. non loolu war ñu ko nangu nekkul sa xel boo xamante ne euh, day day day day day day jëmmal démocratie ak ak ak loo xamante ne quand ñi ñuy wax les martyrs de Pastef l'ont l'ont subi parce que am na ñoo xam ne dañoo xeex ba sonn ñu tëj leen kaso ndax Ousmane Sonko am na ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci xeex ma ndax Ousmane Sonko pendant ce temps des gens se permis lépp li nga xamante ne Ousmane Sonko moo ko doon liggéey ngir ñu dem ca muy maanaam ñu def changement ci réew mi am ñoo xamante ne ñoom dañoo làqatu ci seen ginnaaw ab candidat nekk tant que su ne ki nga xam ne moo di Karim Wade su bokkul ci élection yi élection dul am ci réew mi mais vous yéen kaddu yooyu nga xam ne les vous pensez que les Sénégalais l'ont oublié man man je l'ai dit personnellement jour boobu la considération mooy nit koo xam ne mën na yore réew mi ci Sénégal. Mm-hmm. ñoom ñu jàpp ne Karim Wade c'est l'omnipotent l'omniscient koo xamante moom kese moom mën a yore réew mi au de quoi Karim Wade dafa ëpp ñu ci des xam-xam. wala Karim Wade dafa moom mi nga xam ne moo toog doo moo bëgg a ñu ñu ñu raser Sénégal parce que imagine toi ce qui s'est passé après ce renvoi des jeunes ont manifesté à Pékin et Guinaw Rail un des militants de Pastef a été malheureusement tué

tuumal ma lu nekk hmm. à la limite sax nga ne ma man terroriste terroriste terroriste la nga def may accusation yu gravissime yoo xamante ne yoon ci sukkandikoo woon mënoon nañ maa tëj tey nga xëy comme si de rien n'était je ne sais pas pour quelle raison yow nga ne da may ñëw jàppale su la neexee ah. am nga ci droit peut-être rendre compte ne man maa yoonu waax bi la politique c'est comme man nag là je suis ah, parce que politique Marieta <laughs> parce que nañu waxante dëgg tey politique am na ñoo xam ne dañu ci am ay valeur Ousmane Sonko mii am na ay valeur personnelles yi nga xam ne da ko am ba tax ñu bari tey topp ko mhm. dañ ko wax te dee Ousmane Sonko ci ay discours am da nga cee dafa am benn constance boo xamante ne moom moo ci nekk man moo taxee ci d'une part dama ko ko naw moo taxee ba mu waxee ne élection présidentielle bañ jëlee nekk ñoom ils disent non à transhumance parce que transhumance dafa nekk loo xam ne ni ñu ko yàgg ci gis ci réew mi. moom transhumé wul de dafa voté vote rek. man su def man nangul ko ko personnellement parce que dama jàpp ne kii am na candidat bu muy soutenir mais yow mënoo bokk ci parti bi bi jël yoon bii rek yow nga ne déet doo jël yoon boobu ba pare nañ nañ voté diw. Mhm. diw moom su la ubbalee buntam nga ñëw dugg toog te victoire su amee da toog revendiquer Karim Wade bi muy def diir vente victoire mu ne bi xamoon nañu yow soo sañoon ñii sax duñu nekk candidat ndax yaa ngi doon wax naan soo bokk élection du am. élection du am mais ñoom ñoo ko def waa PDS di. ñoo ko def seen ne ji ne ñëwal Sénégal nga xeex nga daal mënta ne wax xam nga nit nag wax dëgg yàlla da ngay soit da ngay weex wala nga ñuul parce que Mame Diarra Fam nag pour dire vrai bokkoon na ci ñi gënoon a jege Ousmane Sonko quoi. waaw boole moo doon voilà doon nañ ko boole sax ci ci yaayu Ousmane Sonko yi. nga xam ni moom euh, amoon na. daan na daan na euh, mën a dem sax ci kër Ousmane Sonko voilà ci moment yoo xamante ni seen xëy ñenn ñi mais ñi ngi fàttaliku ci foofu lañu ko jàppoon si kër góor gi. Euh, ba taxoon xëy na yenn ci waa waa waa PDS ci moom li mu wax di di ko attaqué ak di ko taxé xëy na de pro Sonko gi ni mais dañu dem ba ci digg bi mu commencé nag jël position yoo xam ne ak yëkkati kàddu yoo xam ni euh, voilà da nga naan mais politique gu Sénégal moom nu mu nu mu demee nii ko en fait nga xam ni moom ci boppam wax na ko. moment bi ñu ko jàppee waaw waa ñenn ñi nga xam ne ñoom la gën a jegewul ci politique sax yónnee wuñ ko ay avocat moom avocat yi mu am ak yi ko Ousmane ko yónnee ñoo ko doon taxaw. Hmm. kon kooku noonu au moins amoon na bët bu mu la doon xoolee te am na fu mu la tegoon mais dañu dem ba ci biir kàddu yi mu doon yëkkati ak position yi mu doon taxee nag ko dëgg yàlla yàqal ko lu baree bare bari te Pastef li nga xam ne noonu la ñuy doxee. ak li nga xam ne moom la ñuy woote nag wax dëgg yàlla dafa waroo ak ñoom itam ñu parce que nag euh, jëm ci ay élection te lii dafay wane firndeel encore une fois que ni Pastef ñoom euh, doxuñu ci ay calcul mais doxuñu aussi tamit ay intérêt parce que élection législative yi nii wax dëgg yàlla kenn ñenn ñi bokk bu doon ñooma dañu naan ah Mame Diarra Fam kët euh, c'est quelqu'un boo xam ni lu mu bon bon am na benn base politique mhm. boo xam ni mais nañu ko xëcc ñu taf ko ci suñ kaw mais Pastef ñoom xooluñu yooyu yëpp ñoom li nga xam ni moom la ñuy xool ak moom la ñuy bàyyi xel xëy na ci peut-être ci communiqué boo ko boo jàngatee ba ci biir ak ni ñu tontoo ki nga xam ni moo di maam jaara fa mais nit ki da ngay am constance ah. da ngay weex tàll wala nga ñuul kukk loolu daf ci def ci am solo parce que man de bu doon sama genre yow moom damay xool may def samay calcul politique hmm. man yaa moom ko su ma ko cee taf lu bon bon bon bon bon bon mën naa am ci moom ay ay ay xob yoo xam ni <laughs> voilà voilà léegi nag ñoom du ñu ñëw waa Pastef di defaat les mêmes erreurs que régime bi nga xam ni moom moo fi moom moo fi jugee moo tax euh, vraiment décision bi nga xam ne en tout cas jël nañ ko politiquement euh, maanaam am na danañ leen gën a joxaat beneen beneen dayo boo xam ni rawatina ci élection législative yi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi xool di observer mais dañu naan ko di jàll ñii mais ci logique ak li nga xam ni moom la ñu woote ba ñu toggee ci nguur gi ba léegi mais ci la ñu nekk mooy que ni ñoom jub jubal jubanti mais aussi du ñu nekk fii di def yenn ci ay calcul politique loolu pour mhm. man c'est extrêmement important te mën naa ni sax mën nañu ci am ay poñ yoo xam ne bu ñu àndoon tey wala ñu accepté woon Mame Diarra Fam bi am na ci ñoo xam ni am na nu ñu ko mën a gisee xam nga boo waxee nag des fois dafay am ñu naan ñoo am na ñu féete woon fii ba mu yàgg ñëw fii mais ñooñu au moins bi ñu dikkee am nañu constance mais Mame Diarra Fam mhm. dañu euh, gis ni wax dëgg yàlla moo dafa cigiñ cagañ xam nga cigiñ cagañ nag <laughs> boo ko waxee suñu mbokk bool bool yi xëy na dinañu xam <laughs> dinañu xam lu fi lu muy si <laughs> ñuy def nii c'est si en fait sax buy def nii la léegi nag amoo équilibre no am politique te moom dafa xam nga boo te moom dafa amul vraiment euh, politique il faut nga am nga nga mën a liir flair nga am flair politique. voilà nga nga am nga nga nga am parce que woo muroon na xam ni wax dëgg yàlla yëf yi tôt ou tard ci loxo Ousmane Sonko lay mujjee mais xool suñu yaay Aïda Mbodj suñu maman Aïda Mbodj. moom depuis assemblée nationale la yaayu Ousmane Sonko am nekk ci constance boobu nekk ci nekk ci ba tey eh, ni ñu taxawalee la cos yaakaar naa ci la bokkoon ba ni ñu demee coalition Yewwi Askan Wi ak ni ñu demee jomaay eh, président ba tey ni mu ni ñu ko joxe eh, poste bi nga xam ni moom la occupé moment bi ci nguur gi c'est-à-dire nit ki boo xasee ba weex il faut nga wane ni man dama weex tàll te Mame Aïda Mbodj vraiment ni ni ñu ko doon woowee yaay Ousmane Sonko moom jaara fam demoon na ba toll foo xam ni eh, noonu la ñu ko doon wooy moom aussi yaay Ousmane Sonko moom sax da ko doon moom moo ko doon wooy boppam ba ñenn ñi mujjee cee topp mais eh, finalement eh, décision bi nga xam ni moom lu mujjee jëlaat ci diggante bi da ko yàqal lu bari parce que tout simplement Karim Wade bi nga xam ni daal moom eh, moom te Karim dafa leen a tawale ah. te fàttali en deux mille en bi ngay wax sànq ba noonu bëggoon appuyer mooy en deux mille vingt deux Mame Diarra Fam moom la ñu ak Déthié Fall ci cité kër góor gi. loolu laa wax sànq laata ñuy dem laata yi parce que ñoom dañoo woote ab ndaje mu mag ngir. Euh, xeex ci euh, ni nga xamante noonu la noonu ñu amale euh, kii. Mm-hmm. processus électoral yi moom Déthié Fall lañ jàppoon woon ay 6 mois ba naan est danañ mën a nekk candidat mais après ñu ñu ñu bàyyi leen. ñu ñu bàyyi leen ñu dem c' euh, laa wax sànq ma ni ñoom. waa mm-hmm. PDS Karim daf leen a tayle politiquement <laughs> Karim day toog Qatar naan leen. à <laughs> ah, <laughs> bientôt dinaa ñëw dafa yàq seen parti bi quoi. seen ñëw waaw bu ñu wax ak seen i militants ñi leen. Karim léegi ngeen gis ko ci réew yi gars yi di defar seen i kii pour xaar Karim aéroport ba. dañuy toog ko kenn ko far si ñoom mu ni ma léegi léegi mu ñëw.